ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen jaajëfal di kontaan ci yéen euh, di leen wax ne kontaan nañ bu baax a baax ci jox bopp bi ngeen jox bopp. te nag maa ngi fii géejawaay seet si ki nga xamante ni mooy mbaytin Tine ñu bàyyi ko mu nuyoo moom nag dafa jë mal benn combat moo Jalle de combat bi nag depuis daalo woon defe naa ne ëpp na attaque lu teg boobaak léegi Covid bi ñëw yeneen ak yeneen jaaf yi ba tax na combat bi tey la àjjuma dimanche sama bëgg ki nga xamante ni mooy Dia ma bàyyi ko mu nuyoo ñu xuus ci waxtaan wi wéyal waxtaan wi tuuti Mbaye nuyu naa la. fay naa la ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ñoo ngi sant suñu sëriñ Cheikh Modou di santaat suñu sëriñ Cheikh Modou Gueye di sant suñu waajur bu baax di sant waa Géejawaay di sant waa Wasaare Lamb di sant sama staff bi yëpp. ku mel ne Vieux ak Laylabo ak Izo ak Gambien ak Buri Sall yëpp maa leen nuyu ñëpp ñëpp leen bëggee oui. mais Mbaye nga war a bëre dimanche tey di àjjuma wàccaay li foo ci waaw wàccaay moom pare nañ moom wax dëgg yàlla bu tey tey tey tey ñu dem bëre daan ñibbisi ci kàttanu yàlla waaw. li tax sax ma njëkkee foofu mooy maanaam combat bi dafa jib si ba noppi mais laataa loolu. sa diggante yow ak Diarra 2 la moo dugg ci Diarra 2 parce que gis nañ yaa jiitu ci làmb maanaam bu bu bu làmb waxoon dëgg rek dépassé ngi fii nga jékki-jékki jël Diarra 2 lan moo xam nga gars yi moom dañoo tàmm benn affaire naan yaa jiitu ci làmb jiitu ma ko ci làmb de Diarra jiitu ma ci làmb Diarra 2 muy bëree ci combat waxtaan ba signature ba maa ngi woon foofu bokk nañ mbapat pikin bii. musuma xaa jiitu ci làmb dafa dafa dafa tàppetoon rek bañ a dugg fi ma dugg rek waaw. dafa ñemewu woon ak ko man dama ñeme. waaw te bu dimanche jote dina xam damaa ñeme man nee naa ko li ma wax moom danaa ko def ci kàttanu yàlla jara euh, du sama adversaire bu ñuy wax sama adversaire la ñi ma war a bëreel. bu ma paree dinañ xam nii laa war a bëreel ci kàttanu yàlla. mais dama ko dama ko dama dalaloon benn supporter am ak kenn koo xamante ni bokk na ci yow muy laay mais dama leen dama leen dalal ñu waxtaan mais ñoom dañ ne xamoon nañ ni dañuy bëre ak yow foos même yow sax xamoon nga lool xamoon ngeen tôt ou tard da ngeen di bëre. non man xaw ma ko woon parce que ñoom à tout moment heure bu ma ñëw stade dañ ma jéem a tëkku moom. ak euh, yenn gars yi Facebook sax da ma doon message wej wej wej man leen ni lu jot yomb li ma booleeg moom mooy saison bi mu ngi tëj te aw ma combat moo fi nekk di balbal man leen indi leen ko ndànk rek na ñëw rek waaw bu ñëwee ndànk rek dina baax. mais dafay balballu wala dafa toll ci ci ci yëg dooleem. bu yëgee dooleem ba ñëw ba dalanteeg man dina xam dooleem boobu ñuul dara parce que dugg na fi Mandela defal ko bu ne weñ waaw foofu la waroon a yem génn si école bi. dafa doyalagul bu ko Mandela daanee mu bëgg a ñëw jëlaat revanche est-ce que looloo tax mu ne xaaral ma jaa ci parce que nag mbaytin mbaytin am na foo tooloon koy bëgg a fàtte xaw ma bokk yow yaa bëgg fàtte sa bopp mbaytin mbaytin man daan gis mbaytin boobu ñun man man sa man man boog man boog damaa gëj a gis mbaytin boobu lan moo xew. bu dimanche jotee nga gis mbaytin bu raw boobu ci kàttanu yàlla. mais lan moo nekkoon problème bi. waaw xam nga loolu liñ naan fóotum biir la ci ci ci ci ci biir la loolu ci biir la du lépp lañ mën a wax mais staff yi ñoom xam nañ lan moo nekkoon ci ginnaaw waaw loolu yëpp ñu ngi ciy raxasaat yàlla baax na. kon yaakaar ngeen fi mu toll la raxasaat ngeen ko ba set na te Mbaye war na mën a ñëw beesaat tàq. tàq kay ci la kaat moom ci kàttanu yàlla jare dina doyal sëkk sëkk sëkk sëkk fu mu dégg Mbaye Tine moom. bu gisee ñuy xeel ataaya sax du fa toog. diggante Pikine ak Géejawaay la. yàgg naa dugg Pikine. Pikine moom duma ma fa du ne guleet. waaw xaw sa diggante Diarra 2 lan la laaj. sa diggante Diarra 2 parce que bu ñuy xool yaa ko xaw a su tuuti mais ci taay bi xaw ngeen a neexaw. waaw dama xam ne neexoo nañu. moo tax ma jël ko. waaw. gis naa ko bu baax. liir naa ko bu baax. waaw te bu arbitre ne prix rek. mais nag mais nag Dia dafay xeex de. ah xam naa man damay damay maasaale. du ma ko may dara de parce que sëñ Touba du ko may dara. gis naa ko saa bu ma gisee non pare naa ki dafa ñëw ma faxas ko jàll ne dem xool leneen. xam nga dégg naa benn interview mu naan ni dañoo waroon a def fi benn bayal ci gée bayal géejuwaay pour ñu ñëw bëri foofu. maanaam kon yow suufu géej waaye lay doon kon moom bu jur ba parce que dinaa ko daan ba mu foog ne moom musul xam nu ñuy bëree jarab bapat yi ma doon taxawaalu di ko jël du fa sax taxawaalu waxoontuma laag. lan <laughs> moo tax moo tax lan moo tax nga xeeb Diarra 2 la de. yàlla xam na ne xeebu ma dama ko considère comme mbër yi may bëreel moom moo ma xeeb. Diarra 2 da laa xeeb daf maa xeeb de man ci biir version waxam yëpp maa ngi koy déglu déglu naa ko bu baax a baax a baax a baax mais daal gis nga jàdli noonu la fi defoon. xeeb ma ci biir signature ba ñu génnee li ma ko wax déggu na ko même lamba ji damaa egsi mu naa ma xanaa da feebar mais bañ dawee ba jàppoo dafa xam ne kii du poincé moo dama ko limbar limbar yu wóor. doq suuf te ci kàttanu yàlla moom mi Jérémy li ma liggéey ci kombaa bi moo ko jàppee mu waye de. est-ce que xam nga ne làmb ji bokk na ci làmb yi la mën a delloo siwaat ci biir làmb nga dellu siwaat sa place bi nga nekkoon. xam naa loolu bu baax moo tax liggéey nañ lépp lu ñu war a liggéey ànd seeg staff bi di ci def lu jéggi dayoo waaw loolu moom xam nga ñu ne saa la ñuy ñaan ñu fekk ko ba autorité yi. jàpp ci bu baax comme ku mel na Bayri Sey ak madame la maire comme kii lañ tuddee drapeau bi Modou fay ñu ngi wax na day jëndee billets ñu ngi koy ñaan mu yokkal ñu billets bu baax ak ñoom bibi ñoom ceeg ñoom demb gars jàpp si bu baax loolu la ñuy xaar fi mu nekk nii. mbokk yi ñoo ngi jégalu loolu sax la ñu woo njëkkee muy euh, dese bi nga xamante ni nii mooy. Sa Kajoor loolu la ñu woo njëkkee ñoo ngi leen di di ko baalu àq di baalu àq ñëpp. di wax ne saraxam yàlla na yàgg seen loxo defe naa tey le jour sarax bi loolu woo njëkkee mais ñu ngi ciy bu baax baax dafa mel ni amoon décès de. waaw amoon nañ décès di moo nekkoon sarax si suñu papa bu baax la moom Mor Fadam yëpp ñoo bokkoon benn kër ak mère Mariama moom it ne mooy loolu yàlla la leen fi jële xam nga di leen ci jaale bu baax même garga ñu ngi koy jaale mbokk mi moom ñoom Modou Mbuub Tanor xam nga ñooñ dañ ñoo nekk lu ñu leen fàtte mukk ak laay mu ndaw yàlla na yàlla xaar àjjana barke Seydina Mohamed waaw. mais naka naka naka ngay waajee combat bi naka ngay waajee combat parce que combat bi ñëw na ba des trois jours xaw ma deux jours naka nga koy waajee fi mu toll nii. waaw nuñ koy waajee moom daanaka pare nañ daal wax dëgg yàlla moom entraînement yi def nañ ko nu mu waree lépp loo xamante ne daal combat laaj na ko def nañ ko. toll da ngaa wàññi wala da ngaa yokk poids. non instant bi xam nga rek mënu ma la si wax dara. dafa mel da ngaa yokk poids bi de ni ma la gisee nii. yokku ma dara. jaay moo la jaayal nga yokk poids bi ni gën a diis. xanaa moom dama entraîné ba feebar. barke Seydina Mohamed. laajal ñii. moo tax nangu ma sax génn. dama feebar. kon kon kon bi am foo ko teg. ay <laughs> wallahi bu arbitre ne bu yaakaaree dinaa ko may lu tolloog kaani day nax boppam. kon doo ko teggil tànk. waaye yow bët du ko ko teggil bët du ma ko ko teggil lu mu bëgg ma dugg seeg moom te bu loxo bi jàppee rek moo xam ne yegg na. xanaa dafa am lu ñu la dee fi tol toll nii. deewuñu ma dara li ma gëm la man ku ma yàgg xam xam ne Mbaye Tine bu jàppee dem na waaw te ci jaara moom di ko jàppee moo xam ne. mais nag mais nag bu ñu waxantee dëgg ak a xaw na diis nekkul koo xam te ne da nga koy ñëw jàpp ak patam patamee ko dem kooku moom ko xam Dia ku ne xam na Dia oyofeewul noonu nag bay moo ko gën a diis macha loo xalaat ci mbër mu ngi ci Eumeu loo xalaat ci mbër rek mu ngi ci Eumeu Sène waxuma la ay bada waaw ñooñu lay kontaagal te bada bu jàppoon tey jaara léegi léegi nii jaara du reer. waaw waaw man ëmma ay ndaanaan lañ de waaw. lan lan lan nga koy yóbbante moom Diallo. li ma koy yóbbante keroog mos na ci signature ba mos na am na lu ma ko wax ba muy takk rajo yi di am lu muy teg man daal li ma lay yóbbante mooy mais léegi mënoo ma wax li nga ko waxoon scientifique parce que am na benn booyam bu ma envoyé message ne ma li mu wax woo koo wax lan nga wax scientifique bi. xam nga booyam bi nee na nee na da laa yónnee man tamit li ma yóbbante nag depuis boobu ba léegi man maa ngi gis ay vidéo am lu muy wax mais tontu ma ko léegi daal li ma koy wax mooy lenn na dëggal boppam mu bañ a ñax ko jom ñu ñëw wane fulla ak fayda ma daan ko ñibbi si géejawaay waaw point. doo mu wax li nga ko waxoon. ah moom sib na sib na bu baax li ma ko wax. bu ko bañee am na bu ko bañul am na. dégg nga laay <laughs> laay moom moom xam nga rek mooy loolu mais man li ma ko mën a wax daal wàññil jëlal benn rek. <laughs> jëlal benn. waxu mag lañ lay wax. day àbbu kanam wala jënd kanam. man moom naturel laay ñëwee ci làmb ji bu ma xoolee xam ne. jënduma kanam. li may dégg ñaan mag muus na kon bu ñëw ci làmb bi dafa am melokaan boo xam ne da koy ñëw te du te te moomu ko. moo da koy mais mais mobilisation bi mobilisation bi fan ci toll. mobilisation bi moom waxuma la asag naa rek mais ñoom vie ak Layla boo ñu ngi ciy dox ay jéego yu am solo parce que boo xoolee waa asag naa bi. ñoom Demba Ndiaye ñoom kii faama ñoom Buri ñu ngi si def lu extra. yow nga waaj de ndax moom pied pied dans lay def de moom day dox rek ñëw du jaa oto du jaa jël waaye yow man fii bu ma neexee ma jël wotiir yëpp raam ñëw wotiir yëpp raam ñëw dugg Pikine waaw dara. moom bu ko neexee na dugg bu ma ko fekkee foofu jël li may jël ñibbi si géej waaye. wàllu mystique bi nag foo ci toll. non man yoruma mystique ñi ko yor moom man xamal laa am takk ngémb jàpp daan lan laa am ci loolu man moom xaw ma dara ci mystique. lan ngay boo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ak ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp ñu tàggatoo. waaw loolu moom dama ci sawar parce que maa ngi ci woo ñoom Pape Sey bu baax waa Racine Talla di ci woo Adama di ci woo Baydi Sey bu baax a baax a baax a baax jàpp na si. day di sëy jàpp na si bu baax moo soxna madame la maire démb la ñoo recevoir mairie ba jox ñu xaalis ne ni jàpp leen si parce que dama am ay dëj di ci woo nag saawaay bi ñu tuddee drapeau Modou Faye ne ko na si gën a jàppat njaga bu Cap-Vert amuma fayam waaw njaga da see jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax moom ñoom mooy mun a xam nga ay ñoom Souleymane Congaan xam nga ay ñoom jaayëpp waa Marché Ndiarème waa lavage ba gaa yëpp même Bas Jaxate Bas Jaxate maa ngi ko ciy sant bu baax Sada Thiam ñëwal Pape Thiam xam nga waa Rompoy moo fa dem yëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn ak Fallou Rakku Jéey maa ko ciy woo bu baax waa école bi moom maa leen sant bu baax parce que aw fay école bi moom aw ma seen fay ah Alaaji Naar maa ngi koy woo di sant nag sama bàjjen bi Buri waaw Buri Sall mi dama koy sant bu baax parce que moom lu fi neex rek moom moo ko neexal fii laay tëdd ginaar mburu ngeen bëgg lu yomb. ah sama bàjjen la xam nga Moussa si da ko indi ci kër gi rek mu may defal lu ma neex barki yàlla fii laay tëdd ci saal bi di def lu ma tëdëx. mais wàllum ambiance tuus bi est ce yaa ngi waajal lu bees ndax nag da ngeen di bëri ci bésu mag Abdou juuf ak Gris 2 que yaa ngi waaj lu bees. lu neex laa teg démb dama waxoon sax dama koy bàyyi mu sedd mais démb dama xool dam dama jàpp temps bu baax boo xamante ne jara bu ko gisee dina ne ca gi cara mba cax gi cara gi cara mba cax jër jër jër boobu laa koy may la kat. Euh. mi soobee yàlla. maa ngi sant sama sëriñ seex Modou Gueye moo nekk nii Cheikh Modou Gueye amuñu fayam wër na maam Seera Fall kenn du moom yàlla ko sëriñ Tuubaa gën a dooleel barke maam Seera Fall di di leen ñaanal yéen jàmm ju mot ñaanal caméraman bi. gis ngeen di leen ñaanal jàmm ju mot noonu noonu la tàggatoowee waaye di leen wax na nag Euh, le 4 moom defe naa du yomb ndax su ma ñëwee ci liis njaago ak 4 Rebeuss loolu làmb yu neex la Mbaye Tine Diarra nga ñëw ci Gris 2 Abdou Diouf lamb yu neex la di jaajëfal jéy bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan wér gu ba mu yeggali li li nga xamante ni moo nekk ci xolam. di leen jox dig daje maa ngi ciy gërëm ñi fi teew ñëpp ñoom laay ak ñeneen ñi fi teew ñëpp ñu ma mën a tudd seen tur kàggu kontaan naa ci yow jaageen jëf ba beneen.